asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa Samadiya ci njiital Cheikh Abdou Samad ci benn fanu gàmmu gii nga xamante ni ci lañ am lépp ah waaye ñu dajeeg vidéo boo xam ne xam naa mi yebal ak njabootam ay doomam ñu dem ci magam jox ko addi ju takku wax di kii day li sëñ sama de li maam wax ni fa kullu man anfaqa fi mu almusarrafi maalan bi xayri sharafi wala bi xadri dirhami kon indi na ci lu rëy lool ndax wala bi xadri dirhami la maam wax moom moo def ci wala bi xadri ay million kon loolu lu rëy la moo ñu ko wax ni man taxaa man xëya li man xat xaraa mubajjilan fa xaba xayraat ahlil himami kon mu ne képp ku wutu aw ñam joxe ci guddi gàmmu gii loola day denc ni yi woo xam ne ñi nga xam yow itte seen dund gépp ñu def ko jaamu yàlla ba jeexal ko ci jaamu yàlla loolu ñu denc Sëñ Tuubaa nee na da ko denc ci ñam woowee nga joxe euh, kon loolu ñu ngi ko ci sant baax a baax nu fas yéene disaar na ci seen aljawhar nafis bi nga xamante ni moom lañ baaxoo jàngale ci béréb bii suñ noppee ñoo ngi xalaat albarsan ji bi nga xam ne dañ ko bëgg a tàmbali ci gàmmu gi bis bu set fu ñetti waxtu tegale dara danañ ci def waxtaan ci guddi yonent bi sallallahu alayhi ak feeñam ak i maamam kon bisimilah. waaye dafa mel ñu ngi tolloon ci mu ne faslun li tàqale la fii maa ci la xam ni yum naaw def na tere fii la ak jëfam bi xëyri wo boo in ci lu njàpp ku jàppul de lii dañ laa tere nga jëf ko lii mi bëgg a wax nii ku jàppul waru ko def lu ci njëkk laysa salaatun déet ak julli li xayri mutawadi in di war ci ki jàppul ki jàppul warta julli war nag day ñaar nangam daa war ci moom mooy loo xam ne bu nangam waru ci rek mooy sawaan bi ki julli ki jàppul daa waru juli da dañ la koy tere farata ak sunna ci yem laysa li xëy laysa salaat di julli li xëy mu tawaat yi ñeel ku daa jàpp wala tawaafu bayti man di jaagi ne wër ka nga xam ni yoo lii day méngale asilaata maya ki nga xam ne moo joxe may yi lu waaye am la ko jox muy sunu borom kaabam googee de képp ku jëppul wóoroo koo wër nga ne ko ñaari yooyu dong la mu li déedéet des na de ka massi musafi ne nga laal ab kaamil kaamil alxuraan nga laal ko képp xul waxal aw jildin wala ab der loxo ñeel ko bil xóori ci bant aw bi saw bi wala ci mbubb aw naxin wala niru loxo ñeel ko der bi mooy lan am na der bu ñuy wax gëbrë gëbrë ak mbuus la goo xam ne dañ caa def kaamil alxuraan di ko gàddu mbuus googu képp nga ne kaamil ci biir nga ko dafa araam ci ki mooy der bi bant bant dafa am lu ñuy uh, sàmm si dañ ko daa yor moo lay wax mbalka yaanutee gàddu mbalka te sàmmaade mbalka ak mbuus la doon ko xam ne ci takk aw yat yan woowee nag ñu teg ko ci ëpp kaamil ci biir nga laal ko di jàppoo dañ la ko tere aw bi sëb wala ab saak saak bu def alxuraan ne ñu jot li ma saag bee aw nax wi lu nur loxo ñeel ko yëpp dañ ko tere ku jàpp mu ne nag waaye nag wa masu sib laalu gone ga bi najaasi ci sobe ga ànd ak mu yor sobe kamasatil kibaari mi ngi mel laalu màgg rek fil ihsaan ci mooy ga xale bi nga xam daa jàpp laal kaamil Alxuraan mooy gam ci am moom mooy màgg ñooyam waaye nag lakkinamal ismu li fi nekkal bàkkaar ba nag alal munaawili day war ci aji jot li ja falaatukun bul nekk munaawilan di aji jot li yaa saa il yow aji laaj sama gone gu xamul dara nga ne ko jox ma kaamil bi yow mi ko jox ma kaamil bi yaa yor bàkkaar ba ndax moom xamul lu araamal dagan te it da ko war a xamal ne ko day jàpp soog laal kaamil bi ndax fi mu jógee ci ngone doon ga diggante fi mu doon ngone ba jeexal ngone nga dugg ci gàpp mu kàllaf diggante boobu suñu borom koy xam ak ki doon ndax mandarga yooyu tax mu nekk mu kàllaf su koy am yow mën nga ko bañ yëg doonte sa dooma kon da nga koy miinal ni ñuy jaamoo yàlla ak ni ñuy dawe sobe ak mu xam la ko war ci diineem balaa si gàpp mu kàllaf boobu nga xamante ni doo xam kañ la ñëw man ngeen di waxtaan tey mu doon gone suba mu doon mag ndax yàlla ko dogal moom mooy xam ni lii tey jii daal eh, eh, mag la su ko defee moo tax nag balaa ko foofa ko war di ko war di laal danga nga ko war di xamal li nga xamante ni mooy la ko war ci diineem mu xam ko kon nag bu gone a nga ne ko jotuloo kaamil bi mu ne wan ku koo xam ne yusalli dana julli bila tuhurin ci dul laab abadan faw bilaa darooratin ci lu du lor fa soo fisxin caay-caay la badaagoo feeñ na koo xam ne daa jekk bi yàgg dem sur julli di jëppul abudu laab nee na saay-saay bona bon la kooku ku mën doon ab saay-saay la te nag ñu bare bare dañ ko def am na ñoo xam ne bu toogee ci mbooloo nit ñu jóg di julli dañuy am kerse ni damay dem jàppi wala jàppaguma dañuy daal di kàbbar julli ne man jàppoon naa fekk jàppuñ di nax nit ñi fa toog fekk yàlla mënu su ko nax la ne saf xol xam na ko ku julli di jàppoo daal suñ duwaa ne naf saay-saay la waaw mu ne fasul lib tàqale la fi ahkaamil xosi ci at tey cangaay wa moojibaatihi ak way waralam wama ak la nga xam ne yetaallaqu dana aju bi ci moom attey sangu farata ak lay war tax lay tax far sangu farata ak la ci aju lépp yajib dana war xusul farida di sangu farata min salaasati asiyaa ñetti mbir bilam tidaa i ci lu dul werante ñetti mbir daal lay tax a sangu farata nga ne ko yumu mu ne ah nii sangu janaaba wa aydan ak mbërëg wa nifaasin ak gësin ñett yi mooy tax a sangu farata janaaba janaaba mooy koo xam ne bànneex day génn ci moom wala euh, bopp sàkkaram sa fàddu jum pëy wala jigéen joo xam ne pëy pëy bopp sàkkara ja fàddu wala mbërëg wala wasin kon dafa mel ni am na ñaar jigéen ko jagoo moom dong te góor moom amul benn moom ndax ñetti yëpp jigéen moom jagoo ñetti yëpp ba am ñaar yoo xam moom dong moo ko jagoo muy gësin ak mbërëg kon jigéen ñoo gën a sonn ndax góor moom benn rek ko ci war mooy bànneex bu génn ci moom wala mu sàkko te boobu ño boo dee bànneex ba bu jaxasoo euh, jigéen ja ñoom ñaar ñëpp lay war kon kon nag ñett yooyu mooy waral sangu farata nga ne ko waaw man dina nga ma janaabati xumulu janaaba mun amal janaabatu ndaal janaaba nag fa tuxaas def koy xeyaas xes mel ni ñaari xaaj janaaba bi ma doon wax daam ñaari xaaj ah, ñaari xaaj ñoom doon fa awalun bu njëkk ba min rajul ci góor bi lazatin ci bànneex muxtaadatin bu di bu mbaaxoo fal tan xel xelul ah janaa bi ci njëkk de mooy góor goo xam dafa génne euh, man yu ci banneex bi baaxoo mooy jaxasoo jigéen moo ci njëkk wala mu génn ci lu jaxasoo jigéen lu mel nga ne ko loolu mooy lan mu ne fii naw min ci nelaw aw yaqasatin wala ci yow jamaan ci booloo jigéen aw xëyra wala ludul moom min xubulin ci kanam ijmaa am ci dajeeg borom xam-xam yëpp moo xam day ne la war a yow ndax am na bànneex boo xam ne eh, man yi dana ci génn te lu ci jaxasoo man na koy xalaat wala mu jonjoog moom ba bu mu génn su boobaay sangu farata moom day war loolu mooy bu njëkk bi li war a sangu farata te sëñ Tuubaa nee julli googu mu julli di jàpput amut laab ku ko def borom caacaa la su fekkee ne dafa am ndox ba noppi ndox am da gis koo xam ne dañuy julli mu daal patam patam mel ni kuy tiim daal daal di julli ànd julli ga tiim googu mu tiim ànd sax lu tax moomu julli moo tax ma lay saloxo di ñeel ko bi daalika tay moom ci boobee tiim yowmal xiyaamati bis penc sira jahannami lu lu sawara neen tiim mën a jàpp na bi tiim amul làpp te boo dee sawara nga jëm julli gi doo jëriñ dara kon ahsana yàlla musul na allah yàlla minal xus minal xuslaan ci perte wa sarri iblis ak ay iblis ma dal diiru jamono kon sunu borom yàlla na yàlla musul ci eh, ay iblis ak perte ndax mooy julli goo xam ne julli gawul yoon ba noppi nga julli loolu ku ko def ko ne bu yemal xaamee suñ tuwaa nee sawar eh, nga la tiim googu di jëmee ndax ku mën a am ndox mën a jàpp ba ne ba du tiim kooka bu yomal xaamee tiimum boobee duñ ko mën wutul lay ndax man na am ndox te ndox lañ ko digal laabu ndox mën am laabu mm, laabu ko tiim du mën a wéy lii nag mooy safaan ba safaan bi lii mën a dox léegi wa man yejit ku fekk fi saw bi ci mbubam yaa bisal mani aji wow ji ma niiw walam yëkkun te nekkul boo ne walam yëkkun nag dem ci bindu ñaaral ba yeddrii di xam waxta isaabatil ma nii waxtoo ko mën ni dab dab daa xëy rek gis mbubum ba mën ni moom ko nga ne ci xam ne lii mën la moom ndax day mel ni xorom soow nga gis ko ci xam ne lii tubéy nga soloon mu tolla fa tubéy ji dall tolla fa sàkkar si nekk nga ne ah lii kat kon mën ni moo la waaye nag xuuma kat kañ la ma jot ndax yàgg na ba woona nu muy def te taxar day waa ahaada mu baamtu maa la lam julli woon min nawmatin ci ay nelaw xat kaana yu nekk na fii ci moom saa ruqaat di borom yandoor kon daal mu jëkkee ba teg tugsaan jot mu xool rek gisul ni ah, man li man yi mii sama sama mbubb la taq waaye ma jot wala waxtu ma la ma daj la ma dab dañu koy xalaatal ne ko biig ba muy nelaw nga la génnoon kon day julliwaat day sangu sangu farata ba noppi su dikkee julli fajar julliwaat tisbaar soogu julli tugsaan soo gëwee nu julli na ko mu noppi baamtuwaat ko baamtuwaat toog sant ci moo tax man day julli ba noppi la la nga xam ne moo dox ci diggante ba mu baamtu ko moo tax kon gis ne mani koŋ ci mbubb di xamul kañ la ko kañ la kañ kañ la kañ euh, <coughs> kañ la mani mu day sangu bu noppee mu baamtuwaat la mu julli woon diggante ba mu nelawee yandoor yoo xam ne xam ne nelaw yii mën na cee gént gu tar kon day mel ni bu dee jàpp ne bii ci guddi daal ba muy nelaw la ko loolu dikkal su ko defee mu daal sango ba set bu sangoo ba set ba noppi nag lam baamtu woon gannaaw nelaw yooyee lam julli woon gannaaw nelaw yooyee da koy baamtuwaat masalan kon julli woon na fajar julli tisbaar xëy na di waajal tukisaan gis ko day daal di sango ba noppi dem julliwaat fajar julli tisbaar soogu julli tukisaan noonu lay def kon baax na jërëjëf ñoom foofu benn yoon waa nga ne nga sangu farata ñaari xaaj la benn baa nga bu ñaar bi mooy lan wasaani ñaareel ba nag muqibul xasafati faddu bopp sàkkara fil far ji jëm pëy walaw bila ixraaji ma in doonte ci lu dul génne am ndox la faxri fi xamal bopp sàkkara bu duggee ci mpëy bu génnewul ndox it sangu farta war na pëyum doomu aadama ak pëyum bayima ci yam kuy dund ak ku faatoo ci yem fu ñu dugalee daal lu tax ne kemb bu loolu di bopp sàkkara fi xanaa fi rëdd woowu yem su duggee ci biir sangu farata war na moom moo xam am na ci bànneex moo xam amu ci banneex kon ñaareel bi mooy loolu liy waral sangu farata waaye nag dañ la mën ni mu génn dana war sangu farata waaye nag gént jax euh, bu dee jaxasoo nit ki nga xam nit ki daa gént jaxasoo ba dara génnul moom dara waru ko mën naa mën na nelaw gént jaxasoo ñeenti jigéen moo xam ay soxnaam lañ moo xam leneen wala moo xam waaye gént na daal moom jaxasoo gi jigéen waaye dara génnul ci loolu lu mu bari bari bari dara waru ko ci kon ki nga day xoole ba na fa bopp sàkkaram def ko ci moo tax ñuy wax kon moo tax wala mu yëkkul nekkul xuslun sangu alaaman di war ka nga xam ni muxtalimun aji gént la fi ruqaat ci yandoor daal nelaw daal gént di jaxasoo jigéen ñu bari wala mu yaxlu ti génnul layaa dan dara minhu ci moom kooku sangu waru ko waaw moom na gént daal jaxasoo jigéen am ci bànneex bi war am lépp waaye xool na dara mbubam tooyul deful dara dara toq ci kooku bu xëyee du sangu def dara day jàpp dem julli moo tax man nag ki nga ne dafay nelaw gént am ci jigéen te yàlla dogal dara génn ci moom kooku sangu faratu waru ko